asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ah comme ni ngeen ko xamee woon nag yaakaar naa ne Père Balla Gaye moom la fi sunu borom yàlla jëlee mu wuy ji boromam ñu koy ñaanal yàlla njégal ko jégal ko te xare ko aljana loolu amoon dimaas tey nekk àllarba di ñetteelu fan bi ñu koy ñaanal fi nga xam ne moom mooy ci këram ci géejawaay ngeen gis nit ñi nii gis ngeen mbër yaa ngi ni taxaw nit ñëpp parce que lii boo ko gisee yàgg maar moo lay wan ne ah lii yëpp moom moo ko liggéeyoon yaa ngi dégg ñëpp ay doomu géejawaay lañ ay mbër lañu nekk si làmb ji Marley ngi nii taxa moom itam di doomu géejawaay di mbër yaakaar naa war na mën a wax si paa bi Marley ginnaaw bu ñu jaale jaalee ñu ngi lay nuyu di la jaar. waaw ñi ngi nangu sa jaal di la nuyu di la ziare bu baax di wax ne axlu làmb yëpp a ñàkk di ko jaale ñëpp daal kenn ku si nekk jaal bi mun nga koo jaale sa bopp sax ndax paa bi suñu papa la ñëpp aussi mu def si làmb loo xamante ne nii lu rafet la ba pare pour lu lay jëmale kanam daal. Mhm. yéen am yow yaa moom amoon ngeen benn relation wala. waaw amoon nañ relation boo xamante nii fu ñu gis rek dinañu conseillé xam nga waaw maanaam di ñu yedd lu bari daal si àdduna di ñu wax ne doxalee leen nii ak nii ak nii kon kooku waaw référence la woon royukaay la woon ñu ngi koy ñaanal daal yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana. amiin mhm. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf. ba tey Gris Bordeaux ngi noonu ñëw na jaale si. Kara ne na ko soo may nuyu danga may xool cey loolu cey Kara. le tubaab bi la na le respect il est le propre. il est la moom lañ doon xaar gis nga ñu ñëpp ñu ngi ni taxaw ba bépp képp kuy mbër mu ndaw yaa ngi taxaw ñuy xaar suñu président mu nekk grand bu baax nag wax dëgg yàlla génte bi waaw ok. kii moom defe naa ko ne xam na ko ndigal moom ci ñi paa tàggat ba lamba xam leen ci la bokk. ndigal ñu ngi lay jaalee Père Balla Gaye Ndour di la laaj ay kàddu seede loo ñu mën a wax ci moom koo xam ne moo la yar ci làmb ba tey ñëpp xam ndigal ci làmb. waaw Babacar maa ngi nuyu di bu baax di nuyu monde entier di jaale géej Sénégal gépp di leen ko jaale ndax Baye Balla moom koy jaale ma nga jaale ndax defar na si Sénégal loo xamante ni moom dootu ko fàtte waaw da tey ku defar maa defar Balla Gaye 2 rek doy na seede quoi waaw ak xale yi topp si am yëpp. mais ñun waa ko yi Balla ñoo ñàkk ndaxte ñàkk nañ koo xamante ne si ñun buñ si su kanamee tuuti ko xam ndax li mu ñu apporté woon si làmb ko mais nag yàlla euh, jaam pexem yàlla ak dogalam yàlla dogalam di ko ñaar yàlla suñ boom yërëm ko mais nag ñàkk nañ ku yaatu xol ku njaboote woon ñëpp ndax les de la wax benn baat ne ku boole téeméer nit boole téeméer jukko moo nag mu boole ay junni jukko boo leen gérer ba kenn xàmmeewu si kim juró kim jurul moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla suñ boom yàlla ko doolu yërmande te jégal ko daal Madji Madji maa ngi lay ziar. ah Babacar maa lay fay. yow it loo ma mën a wax si góor gi. waaw góor gi li la ci mën a wax rek mooy kaddu yi seede yi benn la góor gi nekk na sunu papa ñun ñëpp tàggat nu maanaam yoroon drapeau Guédiawaye njëkk ibbi école de ligue kon xam nga référence la te gàtt gat saa boo ko fekkee ci pàkkam mbee ba romb ko bu dee juróomi conseil sax dina la ko conseil ci làmb ne la góorgóorlul jàppale say ñaari waajur. làmb boo ci góorgóorloo di nga ci am dara di ko ñaanal tey bisu tayam bi yàlla na suufu jàmmalaay sedd ci kawam suñu borom xaree ko àjjana waaw ndax baay Balla moom Baye ñëpp la moom. ñaa. Babacar waaw maa ngi lay nuyu di nuyu waa yëpp xam nga di ko jaale waa aduna di ko jaale waa làmb xam nga lu maa ji wax rek moom boo ko fekkee pàcc ba day moom ma a nees moom maanaam moom xameewul mbër bu mag beeg mbër bu ndaw bi ñëpp la bokkee ñëpp la boole yaramee xam nga ñun bu ñu taxawee li wax Balla Gaye 2 bu mag ñun moom ñun loolu la ñuy wax xam nga ngay jóge entraînement da lay xool ñeewante la ne la mbër loo am lekkal boo mexee suuf ba suuf sax lekkal loolu ay waxam la xam nga duñu conseillé si làmb xam nga doon nit baax xam nga Youssou doomam la ñëpp la njabootee ñëpp la njabootee amul xaar ma yàlla kenn dañ koy ñaanal suñu borom yërëm ko xaare ko àjjana parce que papa ju baax la woon lii rek firndeel na ko àdduna yëpp wuy nañ ko maa gis Fils de Balla taxaw sama gaa yaa ngi nii taxaw ñambaan doom nay maa ngi lay ziar mbaam nga jaam poussé Bousse sigil ndigaale Père Balla Gaye Ndour sigil sa wàll Babacar yal na ko yàlla yërëm taxare ko aljana amiin yaa rabbi amiin yow it yaakaar naa ne kenn du tudd tey làmb ci Sénégal wala ci géejawaay te du la ci boole ak lu mën a xew ak lu mën a xew loolu day am kon yaakaar naa per Balla Gaye Ndour bokk na si xale yaroo ci ay loxoom loo ñu mën wax si Père Balla Gaye Ndour waaw Père Balla Gaye moom baax bi mu baaxoon ak yiw bi rek ak tabe bi ah nekk nit ku baax nit ku nit ku yiw nekk nit ku yemale ñëpp nekk nit ku gore nekk nit ku dëggu dëddu woon àdduna yemale woon yuusu ak man yuusu ak Balla Gaye yuusu ak xale yi nga xam ni ñoo fay entraîné di ko ñaanal jàmm ndax tey ku ne kuñ ne moo defar Balla rek defar nga monument defar nga àdduna te lépp lu Balla Gaye am tey ginnaaw yàlla ak yonent bi moom la kon tey dañu koy ñaanal yàlla xaare ko aljana firdam fii te yéexee ko yéexee ñu ñun ñi nga xam ne tey ñooy ay njabootam. amoon nga ak moom relation. bu baax dama ko doon ñëw di ko seet si mbaaram bi dama doon ko doon romb di ko tàllal loxo mu mën naan ma taxawal ma taxaw wàcc mu conseillé ma ma dem mu dem. tey ñu ne jóge na fi Mor Fadam jóge na fi ak yeneen kilifa yoo xam ne géejawaay lañ nekk yar leen yéen mu mel ni kon relève moo fi tes tey Balla gay fi ne Lac de Guiers 2 fi ne Gouye Gui fi ne Bousse fi ne ñoom fils de Balla Abdou Diouf ñoom njambaan tey lan moo war a nekk seen taxawaay yéen en tant que ay xale comme mag ñi leen formé parce que ñenn ñi wuy ju seen borom ñu leen di ñaanal njéggal ñi fi des yàlla yàggal leen fi ban taxawaay ngeen war a am booloo rek nekk benn juboo jàppalante yéenente jàmm di wax ci kaw di di li ñuy wax ci kaw ñu koy boolee di ko wax ci suuf mais liy yàq euh, réew mi mooy da ngay gis ñuy nax sénégalais yi taxaw ne diw ak diw amuñu benn problème ci caméra bi te bu ñu bu caméra yi fayee ñu nekkaat nañu nekkee woon loolu moom lu jara moytu la moo tax nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci loolu bu ñu nee sénégalais yi ñun kat amuñu benn problème bu caméra yi fayee ñu ñu jëfee loolu. waaye da ngay gis ñuy jëfee loo xam ne tey sénégalais yi dañ naan ah alhamdulilah bu caméra yi fayee ñu ne ah lii kat nakate du dëgg loolu baaxul mais per Balla ak ñoom père Mor Fadam ay père Mohamed Ali ay père Ndiaga ñoo ñu jiwuñ loolu réew mi ñooñu moom ay garmi lañ yoo xam ne defal nañ géejawaay lu ne. kon tey ñun xale yi ñoo war a booloo nekk benn te yeneen te jàmm xam ni Balla gay 2 moo fi ne ñu si des topp ci ñu bokk nekk benn nekk bokk ndey bokk baay loolu rek la réew mi na solo. Fils de Balla. waaw Modou Modou Lamine. naka mu. ba am nga bu baax. yow itam buñ ne Balla Gaye am na Fils de Balla am na. Fils de Balla bi sax ginnaaw bu ma la jaalee. waaw ñu ngi sant yàlla ginnaaw ñu nuyu waaw di jaale Modou Antier. waaw ndax tey dëj bi tey ñëpp ñëpp la metti tey moom Baye Balla ñëpp la moom boo doon wax sax même Balla Gaye bu a jur kenn du ma laal kenn boo ko laalee mu mer jug ne leen bàyyi leen kii xale la ba ci doomam musée xam na lay wax la sama papa moo la reewal moo tax ngay def loolu neex jër tur tuddee ma ko te Baye du n'importe qui. ku tuddee Fils de Balla bi tuddee ñoo toog pàcc moom mu tuddee moom moom moo ko tuddee waaw incha allah. Njambaan. waaw sëñ Babacar ñu ngi lay siyaar wér. di wax ni père Balla Gaye ñàkk nañ ku baax sunu papa sunu xarit di ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana firdawsi man mi chaque jour daf ma doon conseil bi ñu dajee ci biir deeru géejawaay bi da ngaa war a lekk xaalisu làmbu da ngaa war a lekk xaalisu làmbu di ko ñaanal di wax ni ñàkk nañ monument géejawaay mi Baye Balla mais sunu xel dal na dal ci moom bu baax a baax a baax ci liñ ko gis liñ gis fii sunu xel dal na ci bu baax a baax di ko ñaanal àjjanay firdawsi yi waaw salaam. tey ñu ngi leen fekk ci bésu naqar ñu bokk ko ñun ñëpp loo ñu mën a wax baay Baye Balla Gaye Ndour. non Père Balla moom wax dëgg yàlla oh, wax ci moom li ñu xam ci moom bari na mais tamit wax dëgg yàlla tey wax ci moom moom day tiis ci ñun waaw ndax wax dëgg yàlla suñu père la tey ñun lu ñu mel ci làmb rek Père Balla moo ko def ci ñun waaw ndax moo ñu yar ci école am école Balla Gaye day fa la ñu yaroo luñ xam tey si làmb ñu mel si làmb billaay wallaay wa taala yàlla ak moom la ndax dama doon fàttali Père Balla jom jom da ko doon def si ñun da ko doon ñëw école pour entraîner te kenn du la fay nga ñëw tardé entraînement mu dàq la def na ma ko du benn du ñaar du ñett loolu nag da si jublu woon pour lan nga am jom ni ngay def nga bëgg ko te kon tey wax dëgg yàlla kon tey ñun nuñ mën a defar si làmb rek Père Balla am na si part de dañ koy ñaanal nag mu jëm yàlla na koy dàqal fi mu jógee di ko ñaanal yàlla yàlla xaare ko àjjana papa maa ngi lay ziar yow itam di la jaale paa bi. waaw maa lay fay bu baax kay garaan. paa paa loo ñu mën a wax si moom Père Balla. waaw suñu papa woon moom. ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te yéexe ñu yàlla oyofal suuf tam dajanteeg malaaka yërmande mais suñu papa la woon nit ku baax la woon wax dëgg neex yàlla yemale ñëpp nag. xàmmewul doomam xàmmewul ku mbër mu nekk si ikiréem xàmmewul mbër mu dëkk géejawaay ñu ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana taxawaayam rafetoon na xam nga yéene woon na ñëpp jàmm daal kon ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yañ si barki Seydina Mouhamed saraxam yàgg seen loxo di ñaanal njaboot gi fi bàyyi yàlla may leen xolu muñ rawatina doomam Youssou moom it nit ku baax la ñu ngi koy ñaanal suñu borom daal xam nga may ko xolug muñ metti na neexul mais nag yàlla moom bu bëggee xam nga jàmm day ñaax kon ñu ngi ñaan daal yàlla jégal ko ay bàkkaaram te xaree ko àjjana. léegi laaj naa ko léegi buuse tey ñoom mag ñooñu leen yaroon muy père Faram yàlla na ko yàlla yërëm père Balla Gaye Ndour dem na Aline Sey mu mag am na ay quelques mag yu fi ne yàlla nañ fi gën a yàgg mais yéen xale yi mu mel ni fi mu nii am na lu ñu bàyyee seen loxo est ce que loolu yéen ban taxawaay ngeen war a am pour sàmm loolu leen mag mag ñi bàyyi yéen mbaru géejawaay yi. waa waa dama naan a kon dañuy ñaan suñu mag yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu teel ñu ko ba ñun xale yi bu ñëwee ñu mën kaa téye. ama mag yooyu ngeen nekkal yéen a bokk génération muy Balla Gaye muy Lac de muy muy mu ñëw Abdou Diouf. non ñooñu suñu mag lañ. waaw bokk ñoom ñoom benn génération ñooñu ñooñu jiitu si làmb fukki yoon ak juróom-ñaar. ñoom suñuy papa suñuy papa daf leen dañ leen tete ñoom bañ nekk ay magum jëm xam lu bare liggéey si làmb lu bare bare bare bare bare mais ñu ngi ñaan suñu papa yooyu nga xam ne ay Aliou ay Père Balla ay père Mor Fadam xam nga ñu fi jëf ay mama liñ fi jëf te yàlla yàlla na yàlla dogal jëf yooyu ñu jëf ba jël ko teg ko si loxo yi nga xam ne ñoom nga fi lim nii yàlla na ñu ko teel ba ñun ñi nga xam ne ay ndaw la ñu ñëw fekk ko jël ko continuer ko ci barke Seydina Mohamed loolu moom la ñuy ñaan quoi mais ñun actuellement li nga xam ne ñoom liggéey nañ ko dénk nañ ko mag yi ne ñoom ñoo fi nekk actuellement nii nii ñun ay xale lañ ñu ngi si yoon yàlla na jàmm daal ba nga xam ne loolu ñu leen dénk ñu mën ko téye ba ñun bu ñu ñëwee xam nga ñu mën ko eggale daal ci barke alxuraan mais ñoom jëf nañ jëf ju rafet wax dëgg neex yàlla barke alxuraan yal na leen yàlla xaree àjjana ñun ñëpp si barke Alxuraan di leen ñaanal jàmm yooyu jaajëf di yow tamit di la jaale paa bi salaamaaleykum wa rahmatullah di leen wax ne inna ilay wa inna ilay rajo woon waaw Baye Balla di ko xam ne ku généré la woon vraiment di ko xam ne suñu papa la woon ñun ñëpp waaw yàllaa ko fi indi woon nag yàllaa ko soxlawaat jël ko yàlla na fa fekki Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla xaaree ci àjjana yi gën a kawe yi ci barke Salatil Fatiha ci barke yonente bi sallallahu taala alayhi loolu ñu mën a wax si moom si ay kàddu seen waaw muy ku baax di ku généreux maanaam ah, ñun lu ma gën a marqué ci moom mooy man bu ma duggoon ci làmb su ma dawee romb ko mu woo ma ne ma gabaar ne ko ah mu ne ma làmb ji du ñu nga fi indi ñoo koy bëre du supporters yi ngay bëreel du kenn ngay bëreel làmb ji yaay def sa concentration bëre yàlla may la ndam nga dem ñibbi concentré wul li nga liggéey xam nga ko boo ñëwee indi ko am ndam yàlla may la ndam nga dem ñibbi dem ñibbi waaw muy lu am solo muy ku baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljana ci aljana yu gën a kawe yi ci barke yonente bi waaw léegi at wax sigil baax baax la di la yolami sigil ndigaale li ñu mel nii sa wayjur ku ne xam ko li mu def ci réew mi rawatina làmb ak Sénégal loo mën a dikkal ci ay ci sa diggante ak sa papa ak taxawaayam dëgg la waaw sant yàlla baax baax sant yàlla bu baax waaw xam nga di ngeen ñaanal comme bis bi moom Seydina Muhammad la bëgg at yàlla. ku nekk moo xam yàlla na defal waaw ndax nu nekk lay ñëwee. tey nu nekk lay ñëwee ñun ñu fi des di ak njabootam taxawaay bi ban taxawaay. waaw sant yàlla rek di ngeen kon papa ji nga xam ne dafa ñoo yër yërëm ñu bëggul ñu jooy bëggul ñu xiif bëggul ñu mar maa ngi koy bu baax baax baax fee nga xam ne fa la tëdd muy suuf kàmbure yàlla na ko fa yàlla fekk yóbbu ko si àjjana gën a kawe si barke si daaw waaw. ci yow li naa la ko di sant ñëpp sant naa ñëpp géeyaay bi yëpp xam kulli mbaa jiw xale ba ndaw ba mag képp ku dëkk Géejawaay Pikine Sénégal lay wax àdduna ndax ñëpp a bëggee Baye Balla ñëpp a bëggee Baye Balla maa koy ñaanal bu baax a baax a baax di ko sant. sa mbokku mbër yëpp gis nañ ñu ñëw keroog bi ñu koy denc ak même tey baas bi nit ñi mbooloo mi teew nii loolu tamit lu muy def ci yow. waaw loolu sant yàlla rek ndax samay mbokku mbër lañ ñu takk ngeen bu leen neexoon bañ a ñëpp ñëw nañ taxawu ma heure ma geesoo gis leen heure ma jàkkaaroo ñoom gis leen di leen ñaanal lañ yàlla yokk seen fan ñu fi ñëw ñëpp xam nga lépp loo xam ne bëgg nga ko fi rek yàlla la ko yàlla defal nga am jàmm am salaam. ci daraja yi. dama am ci moom cër ndax bi muy lukkeeku jamono boobu Mbaye Gueye mi ngi lukkeeku di ànd ak faga numéro 2 boobu Baye Balla dafa dajeeg Mbaye Cissé jamono dajeeg Papa jamono. boobu làmb wute na tey doo tëb rek nekk champion dañ naan yéeg escalier yi Robert Diouf amoon na rakk ji ñuy wax Georges Diouf nekkoon tenancier mën ca làmb ja ñoom Fara Aw ñoom Laurent Daba ñooñu ñëpp ku ci ne diggaale nekk Baye Balla mii tey Balla daan na noonu la dugge Fass nag daan Papa Kane bu bu Faas daan bay Cissé bëreeg Mita Ndiaye première édition yu match nii carrière foofu rek laa fay yem ndax eh, dañ ma yóbbante waale mais mën naa wax ne Balla guddul réyul mais jamonoom kooku mos a jox day am problème ndax lan fit bi jom bi ngor gi xam nga diggante Balla ak maam góor gi rek doy na sëkk lan moo fi am jullit ak moromam lan moo fi am kóllëre ki ñu nii yàlla na ko muy président des lutteurs en activité jiite ñoom Balla Gaye ñii boole ko ci wàllu làmb Balla Gaye di adversaire am waaye bu ñu xasee ba gën ci biti ñoo bokk ndey ak bàyyi mu am trop lu ko naqari waaye giri ku ko xam-xam ko ci alxuraan du xëccoog yàlla dara nee na bu sañoon tey bàyyi bàlla du dem bu sañoon ma ne ko waaw mu ne ma sama doomu ndey du am lu ko naxari waaye nag yàlla mi nga xam ne mooy lépp lu ko neex def moo ko jël auzu billahi min laa rajim la xawla wala quwata illa billahi al alim mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu dafa fekk rek nii yóbbante galgalu ubul làmb te am na loo xam ne dafay dafay diis lool ci ñu yëkkati fi ay kàddu moo tax tey ñu defoon suñu préférence rek suñu grand suñu kilifa suñu mag ñu bokk ak moom faas bëggoon rek jël suñu ay kàddu jox ko ko parce que wax jafewuñu waaye tey wax daf ñu jafe ci bis bi tey ndax lan ndax ki fi jóge tey loolu moo taxoon ñu bëggoon ñu amoon ñeewantal rek parce que xol wax dafa jafe surtout nag ci moment yi waaye nag dafa fekk nag nettali moom ci làmmiñu boroom la daxee te surtout nag ñi nga xam ne tey ñoom laa àndal fii tey muy association des lutteurs du Sénégal a ah, ñu dajale seen déem ak seen daxaar teg ko suma loxo pour ma jébbal ko njabootu Baye Balla ma ñëwee fi ñaari casquette ma ñëwee fi kasketu écurie Fass ñëwee fi kascasu président des lutteurs mu nekk loo xam ne euh, jëmm ji nga xam ne dafi jóge tey euh, dafa am làmb lu mu lu mu ci réussir te ñu bëri ñu ngi koy jéem te mënuñu ko réussir muy créer école de lutte réussir ko bëri na fa ay école de lutte waaye moom moo ci moom moo ci réussir te loolu loolu am vision mooy tax nga mën a exploiter loolu am vision mooy tax nga mën a réussir loolu yombul lombul rombul kon boog monument de la lutte monument ci sport tey moom la ñàkk tey di ko jaale nag képp koo xam ne yaa ngi takk ngemb di ko jaale promoteur di ko jaale CNG di ko jaale képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci làmb ni suñu papa ji nga xam ne moo fi jógee bërkiwaati démb yàlla na ko yàlla àtte ci yërmandëm maa ngi doon baax di la jaale góor gi Père Balla Gaye mu mel ni ku ne xam ne ne moo leen yar ndax fan yi dégg naa sax yow nga ne boo takkee ngeen moom moo tax te ku wax ku ko wax wax sa mag tey ban yëg-yëg la Sa am ci dëju Papa Balla Gaye mi. waaw bis la boo xam ne bis bu tiis la ci ñun rek suñ ndax euh, ñàkk waajur ko na xam ne dafa metti waaye dañuy daal di sant yàlla baax mooy li ma wax rek moom laay waxaat Baye Balla moom moo njëkk ma école am laa njëkk a takkee ngeen avant ma dem di ñuy former école de Louvares waaw fii laa jóge doogay dem foofu moo tax maam sañ-sañ su ma amee combat sax di ñëw ci école bi di ànd ak ñoom foofu di liggéeyaat. waaw sans sans sans tant que sax may liggéey ak tamit waa école du Double Less damay laal fi di laal fi tey en tant que góor gu mel noonu former école bu mel noonu école bi dem démb tëgg ay champion yoo xam ne dañuy fayee ko ay million ci làmb la preuve Less 2 Elton ñoom soo ko sim ak sama ak Balla Gaye 2 kooku maanaam euh, taxawaayam ñi des tey ginnaawam ñu mën cee commencé sa mag ban taxawaay la war a am après pas bi ginnaaw yàlla jël na ko. waaw Baye Balla bu doon test la parce que tamit euh, ànd ak ay xale yoo xamante ni ci ba ñuy ndaw amuñu sax fukki at ak juróom yàlla def xamuñu ëllëg tey jii li fi nekk ndax dinañ ko fekkee wala dinañ am ndog ndog ci làmb te ku ne xam na ni du ñëpp ci réussir mais ànd na ci ñoom ba kenn ku ci nekk dégg nañ si tur am nga ci sa teraanga sant nga ci yàlla baax a baax a baax waaw xëy na bis la nag bis boo xamante ni dinañu manqué trop waaw rawatina ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi waaye nag li mu fi bàyyi woon buñ ko sàmmee école bi dina jëm ci kanam. sa mag Balla moom loo koy loo koy wax ci sàmm école boobu parce que ñu bëri dañ moom moom moo ci war moo ci war a jiitu moom loo koy wax Balla amoon na benn paar mais léegi day taxaw ci tànkam taxaw ci tànk waajuram waaw ndax Baye Balla place bi mu jóge bi mu nekk moom moo fa mën a ñëw taxaw fa waaw ànd ak ay kilifa yu mu daa àndal ba yàlla suñu borom lépp luñ ci bëgg rek yàlla xam naa ne nañ am te it école bi neex naa neex naa neex ndax ñoom ñëpp ay benn lañ ay papa ak dooma ci nekk ay xarit ay frère te yàgg nañu te lu yàgg rek dëgg la ñoom mun nañoo ànd te gëm naa dinañu réussir li ci kanam nag mooy dàq li ci ginnaaw. Youssou Ndour mi doomam tey di mbër di seen naataango ne ci làmb ji moom tamit loo koy wax. yàlla ko yàlla may xolu muñ yàlla ko yàlla may xolu muñ mooy ñàkk waajur dafa métti rawatina koo xamante ni ba nga juddoo ba léegi moom nga xam di nekk ak moom parce tamit boo xoolee Baye Balla Youssou tolloon na ci bëre mu waroon ko mën a jox avance jox ko ko ay doomu jàmbur la koy jox ngir ëllëg ñu bañ ko ŋàññ kon ba doomam ñoree dugal na ko nit ñaa ngi koy gis maa ngi koy ñaanal nag yàlla may ko jàmm defal ko sutura carrière bu gudd ba tey mu mun a gérer ci kër gi li fi dee mu rey ko ci barkeer xuraan da yusu yi ko yaru la ni ko baax la xale la nag xëy na boo ko waxee ni neex ta xam mais man mi nekk ndaw xam naa ne maa ngi moom ba ñuy jàng fii métier mu nekk lu tuuti wóor na yàlla yàggul dara waaw yàlla ko yàlla defal jàmm nag monde lam tey loo leen def parce que gis nañ kera bi mu wàccee génn àddina armée li fees del waa lamb kenn xàmmewul écrit boobu ak boo bokkul tey tamit di ñetteelu fan bi si dëj bi ñëpp ñëwaat fii loolu tamit ban leçon lay jàngale ci tey yéen ñi nekk ay adversaire ci biir làmb bu jiitu mooy tey kii dem doy na exemple maanaam euh, ci laay fam euh, dajale na lépp ngir former lu baax ba tey ba mu fi jógee ñu baax ñëpp ñu ngi ñuy soutenir ko di ko si kon tey àdduna mu solo tey làmb tey moom gëm naa ni te gën gën na dama sax gën a gëm di bu làmb jotee mën nañoo reyante waaye bu jeexee rek jeex na ndax mbër yi ñooy mayante xaalis ñooy demalante ñooy dikkalante te ñooy tuddalante doom kon du ñaaw xaju suñu diggante suñu biir moo tax képp ku ci wax rek na nga say ba li nga wax ndax ëllëg a tax waaw maa ngi remercier ñëpp nag parce que ñi ñëw ñëpp mënuñu leen lim kontaan nañ ci ñoom yàlla yàlla fay yiw ak ñu fekkee yëpp kontaan ci yow Salim. jërëjëf Ndeye. waaye ko a jàng da nga jël kaw yéen ngay def ngeen tànn mu jàpp ci boole ko sikar su méttee méttee métti bàyyi ma njoon maa ngi lay jaale góor gi. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax quoi vraiment di kontaan ci interview bi di wax ne góor yi ku ne mën na ko jaale sa morom ndax Père Balla suñu papa la ñun man suñu dajee maam moom balaa wax ak man daf may tëf fi naam ba pare doog a wax ak man moo doon loolu cofeel la bu doon daw sama diggante ak moom kon nag bu génn àdduna sama pap moo génn àdduna wallaahi loolu li ma def ko roog loolu rek moom war sama diggante ak moom waaw donc nag yi daal nekkoon ji def jël leen def leen comme ay doomam tàggat leen ba am ay ay champion ay roi des arènes génn ci ma ni Balla Gaye maa ngi koy jàlle di jàlle les de Elton ak mbëri ak képp kuy takk ngemb géej waaye maa lay jaale Père Balla Gaye xam nga muy sunu papa ju baax yàlla na ko yàlla sama borom tereer man dem dëkk ko si àjjana kawe ci barke Seydina Mohamed. Ah, mu mel ni kera geste boobu nga def ngemb na les deux nga bëri ak les deux mais kera nga def sest boo xam ne ñu bëri dañ koy waxtaanee loolu maanaam moo lay wan ne kon lamb dafa mel ni daal adversité bi am na waaye am na loo xam ne bu jotee yéen ñëpp ay bokk nday bokk baay. Mohamed lamb gi dara billaahi wallaahi taala lamb am foog kese la làmb am folo balaa nga xam ne làmb folo tey xoolal tey bu na mee xewu naxar mbër yëpp fii ñëw ñëpp bu la xewu bànneex tamit bu la ko yëgalee da ngay ñëw kon nag ñun bëri na ci làmb yëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi làmb ji utukaayu xaalis kese la da ngay jël sa wërsëg dem keneen jël wërsëgam dem mais làmb bi dara am foo kese la digg sa diggante ak doomu aadama yi jam yi moo ëpp doole yaa ngi dégg kon nag Père Balla Gaye ngeen mën a ay mbër ba ma bëre ak mais tey jii billaahi wallaahi talaahi àgg na yaa ngi dégg de yàlla nag fa yàlla dafa lay appartement yu kawe kawe kawe ci barki Sénat Mohamed muy kilifa gu baax daal góor gu baax la yàlla nag yàlla sama borom xaar àjjana loolu nag ah, ñu bari la jaaxal korok ndax boo xoolee tey jii ñun waa kër Sénat Limamou loolu Sénat Limamou jàngal taalibe bi génn àdduna mu ne na nga taxaw jusqu'au bout ba keroog ñu koy dugal ci bàmmeel man maa ngi fay xaar sama taalibe loolu Sénat Limamou wax mu ne na ngeen yàlla bu baax a baax leen yàlla ba ba ba armée yi riir bu ko dugalee bàmmeel nag man ma jàkkaarloo moom mu xam ki gëmoon mooy kan da Seydina Limaamu dafa wax ni ñaara ma xam ci àdduna ki ma gëm ba dee ak ki ma wedd ba dee kon Baye la gëm na Seydina Limaamu ba génn àdduna kon yàlla na ko lay teeru teral ko yóbbu ko ci àjjana kawe ci barke yàlla sunu borom.